Góor lay bëggee. waaw ah, ñoo ngi lay bëggee Philippe. loo ne. sant yàlla baax. man li ma lay jëkk laaj mooy luy waral turu France France France. France waaw loolu lu yàgg la rek cosaan la rek loo xam ne mooy loolu. waaye daa bëri lu si laxasu quoi waaye waaw. mais tey nga am adversaire boo xam ne moom la ñuy wax leket seen diggante bu ñu waxee ñu ne mooy Modou Lo Balla bu senegal lu tax loolu. waaw sant yàlla rek man moom damaa yor jabu ñaari mbër yëpp. maa yor bu Modou yor bu Balla Gaye waaye nag. bu Balla Gaye bi la naa moom combat bi daal at na boppam waaye waaw at na boppam waaw waa na man xam naa man maay Balla Gaye moom muy Modou waaye sotti seeg def si la rek. yaa yor jikkooy Balla Gaye ak jikkooy Modou maa boole ñaar yëpp saay saay ak mooy loolu ak sama xarit sama doomu ndey Serigne Ndiaye Coriace sama xarit Coriace waaw lu ngeen seq. sama lépp ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk naa yaa ngi woon Ndakaaru ci moom ngeen di yéenay bokk di entraîné guddeeg bëccëg. non kooku man moo mu ne ma woon bul ñëw sax mën naa ñeeku dem waaw ndax yàlla moo booleeg moom may dund moom lu jafe mu gëm ma daf maa gëm waaw daf maa gëm moo tax. kii mas ngeen a bëre. kii non bu dee mas nañoo laale mbapat combat bi xaw a takk suuf yàgg na waaye ak combat bii ñu war a bëriwaat ma war koo daan bi si yàlla andee incha allahu rabbi maanaam santaat yàlla rek di ko ñaanal fi mu bëgg a yóbbu làmb yàlla na ko fa suñ borom àggale ndax lii yombut nañ daan toog di seetaan mbëri di sol kos ñu yaakaar ne lu ñu jomb la fekk na jomb ñu nga bisa ngi ñëw tey mu ñëw defal ñu lii wax dëgg fa yàlla lu rafet lii tey waaw di wane ni mbër noobul la daal waaye ana aas aas moo sama ginnaaw waaye aas sama waay la moom maa ngi koy ziar aas coy bay bay bay bay bay bay ndaysaan ñu ngi Gambia leket a ngongu leket baara day xaw a saf Modou Lo mais mbër maa ngi lay bëggee maa ngi lay dellu bëggee bu baax a baax mais mbër sa costume rafet na waaw bi jàmm moo fi jaar rafet na macha allah leket baara kontaan naa waaw ana waa baara ñu ngi fa rek ñu ngi si jàmm baax tey ni nga dikka doy na waar de ah ni nga dikka dafa doy waar waaw waaw waaw loolu noonu lan la moom dañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax ba pare daf ñu yokk jom gis naa la léegi nga ne nii maanaam deux loolu mooy lan. waaw mooy deux heures rek dama koy daanaat dama ko daanoon dama koy daanaat incha allah. da ko mos a daan. waa mos naa ko daan. foo ko daane woon. Bakaw si stade bu ñuy bëree. Ah, da nga koy daanaat. dama koy daanaat incha allah su kattanu yàlla. loo bokk ak Modou Lo. Modou sama idole la. waaw moom jàmbaar la daanaan la jàmbaar dëgg la waaw di ko ñaanal yàlla wér ak fan incha allah si kattanu yàlla. leket baara ngi noonu leket a ngongu leket baara day xaw a saf Modou Lo mais mbër maa ngi lay bëggee maa lay dellu bëggee bu baax a baax mais mbër sa costume rafet na waaw bi jàmm moo fi jaar rafet na macha allah leket baara kontaan naa waaw ana waa baara ñu ngi fa ñu ngi si jàmm baax tey ni nga dikka doy na waar de ah ni nga dikka dafa doy waar waaw waaw waaw loolu noonu lan la moom dañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax ba pare daf ñu yokk jom gis naa la léegi nga ne nii maanaam deux loolu moy lan. waaw mooy deux heures rek dama koy daanaat dama ko daanoon dama koy daanaat incha allah. da nga ko mos a daan. waaw mos naa ko daan. foo ko daane woon. Bakaw si stade bu ñuy bëree. Ah, da nga koy daanaat. dama koy daanaat incha allah su kattanu yàlla. loo bokk ak Modou Lo. Modou Lo non sama la. waaw moom jàmbaar la daanaan la jàmbaar dëgg la waaw ko ñaanal yàlla wér ak fan incha allah si kattanu yàlla Leket Baara a noonu. leket baara bu baara def fee fee mooy ça veut dire que victoire wala 2-0 ñaar yooyu lay tekki loolu nga def sànq laa bëgg ngeen di ci ay leeral bi ngay dugg si sa ñaari baaram yi nga yëkkati lan moo xew sa diggante kii da ngay ne ma sa bëri nga daan ko wala. waaw loolu mooy tout rek dañ bëri ma daan ko dama koy daanaat incha allah te Independence Stadium daa ko daanee woon te foofu laa koy daanaate incha allah si kattanu yàlla. yaa ko daanoon bi ngeen bëree. maa ko daan jëlee bu set bu am benn benn. loolu leer na. waa askan wi. kon moo daanoon léegi nee na moom moo daan Modou Lo waaw yow fekke nga loolu fekkewu ma ko waaye dégg naa ko dégg nga ko tungu ne nag du teew ñu nataal kii mi ne moom moo daanoon waaw kii la wax ne moom la daanoon waaw comme ko France a ngi nii moom dina si yëy yàbbi waaye France nee na ko man attaquant la te lekk dama bëgg nga dëggal sa bopp man moo toj sa kanam kon jeex na attaquant bu mel ni Chris wala Messi xam naa ay cas dana commune wala Benzema léegi dana daan na la deux dama yaakaar daa bëgg bu ma ko daanee ñu ne loolu jël ko mu teg ko nële li muy wax fekk fa benn fédération laaj ko benn fédération la fekk amul kenn ku ko fekkee dégg rek lañ ci am te fii lépp li ñu li ciy wax léegi ku mel ni du teew ñuy nataal man ak moom gis nga ñun suñu làmb bi tey boo gisee ñun ñi ñëpp war nañoo mën a génn mbapat mais xam nga luy problème bi gis nga képp koo fi war a bëreel rek mu ngi xool fu mu la mës a def lee benn wan appi wala trois appui loolu amul sens xam nga lan moo am sens dañ koo fay fay ma ñu war a bëre man ak moom nekkul ay cadre daanoon naa ko loolu amul sens lan moo am sens lii ñu dëgmal ñu fay ko fay ma mu war a juge baara ma war a juge bànjul te bu soobee yàlla yenente bi si yàlla ndee ma koy daan koy daan dama koy daan nii dama leen a fekk si kaw maa maa ëpp doole bokkuñ man ak maw man ak moom bëre ak mag ak xale la dama ko ko waxati ko day bañ nag xam naa bàyyi ñu loolu di nga gis bi jaaw waaw bàyyi ñu loolu di nga gis bi mag la man ak moom bokkuñ man xale bu ndaw laa dama leen a fekk si kaw di leen déranger waaw dama leen a fekk si kaw di leen déranger ñi ci ëpp si li ñuy jàngat nee nañ benn kele la am waaye France li ma jaaxal mooy pour mos a jàkkaarloo rek nga ne ko kele boobu nga yore mi ne la si laa lay daan te gis nañ ne yi passé loolu da cee feeñ. dégg naa def Modou ko moom xam na si dara laaj ko ba xam mboot ko si laay def moom seetaan na ma may bëre. leget baar arbitre na ma may bëre biir baar su dee loolu rek laay bëre moom xam na su dee du ma bëre noonu xam nga xam nga mooy problème bi nañu waxante dëgg dama koo nangul na ma nangul sama champion man champion laa barki Serigne Fallou man champion laa. ndax damaa ñëw fekk leen fii ñuy bëre bay ñëw di ñëw di ñëw ba ak si ñoom barke Serigne Touba nekk xale bu ndaw di yëngal di bëre di bëre maa leen ëpp ay victoire te ñëw fi njit ñaata man maa ngi sama fottin am naa fottin combat ak bii ma ko war a daan muy fiftin bi soobee yàlla waaw kaay ñu dem ci beneen ba ak ca leket gis nga France nii waaw ndaanaan la loolu am na kii waaw lam laamee woon ndaanaan la déedéet waaye France waaw nee na yàgg naa leket loolu am na lekken na pareegul waaw waaye France nee na ko waaw da nga doon dem si say maaman keroog bañ la garanté ndam gëmal ne la dana baax si nga doog a wax ne pare nga pour bëreek moom nga tontu ci loolu kon tontul leket li ngeen ma laaj ne dama mose a bëreek moom moo tax ma leeral ko fii nii mais boole ma si laaj noonu du ma si mos wax ama la laa gom du ñëw suma kanam ak suma fans si di sonn si man ma ñoom laa gom amul benn wax bu may lijjanti suma noppi yi man li ma gom kii li ma koy wax laa koy waxaat moom fan sami ñoo ma waaye moom yabut ma te lu leer laa lay wax billaay walaay man du ma amaa bëgg nga déglu baax li ma lay wax képp may seetaan muy Gambia ba biir Sénégal amay dégg biir Gambia biir Sénégal laa lay wax képp seetaan jàkkaarloo di nga kan la amay dégg non bu leen wari booy bàyyi leen noonu affaire du fii lii waxtaan xam nga lex lex lex tabax tabax ñu ngi yaa ngi dégg xawal yaa may dégg. mooy lii ñuy def sa dëkk jarul jam jam andeeti nga coow de. waaw Babacar dañuy sant yàlla bu baax ngir Seydina moom la sang sang yi sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ moom la Seex Ibrahima di ñu fi teew yëpp di leen di jox seen wàccuwaay yi di wax ne nañ dal rek dal ak dal rek dal lii fo ak ree la France ak leket ay champion lañ ay kilifa lañ ñoom ñaar ñu ngi ci kaw di wane exemple bu baax kenn waxul sa morom lu ñaaw kenn deful ko ko ñi nga xam ne nag dañ nekk ci ginnaaw bëreewuñu xeexuñu kenn fayu leen dañu dagg seen billet ñëw pour seetaan nit ki nag mënoo jël sa xaalis def ko ci dara ñëw pour war a seetaan loolu ñëw di ko yàq ku yàq yàqaloo ñu sa bopp nga yàqal nañu toog jox respect ñaari mbër yi xam ne ñii seen nawle lañu lii mooy seen liggéey lii lañu am lii la ñu yaakaar buñ leen ko yàqal nañu toog bàyyi ñaari mbër yi waxante nañuy waxante ñu def face to face si jàmm ñu yegg ci jàmm ku ci nekk ñibbi sa kër loolu moo am solo ñun nag dañuy nuyu ñaari mbëri bu baax ndax combat bi yàgg na ay at ñu toog togg ñu muñal sonn nañu torop lu ñu yoroon jeex na ñun lu ñu yoroon jeex na di wax ne nag nañu réew mi yëpp ñaanal ñu jógee ci li jëm ci combat bi on di tattin soreetul ñu wan leen ñu musul gis si lamb Gambie tey gis nga ñaari mbëri buñ demee ba mel nii grâce à Welma boutique la bière de VIP nga xam ne mbër mu ci bëgg a nekk roi des arènes di nga dem si ñoom ñu lay sorom promoteur bi bëgg a nekk nag roi des promoteurs di nga dem di leen di seet di leen nuyu di nuyu ñu fi teew yëpp di nuyu ñu ñu gunge BMG property White House suñuy part duñ suñu partenaire suñuy xarit lañ Baye Parfond suñuy xarit lañ ñu leen ziar bu baax di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp di nuyu staff bi tey bu ñu demee ba mën a def lii rek ñii la di nuyu staffu ñaari mbër yëpp di dem ci kaw France di nuyu staff Mohamed Soumaré ak képp ku nekk ci staff France ñu ngi lay nuyu di dem ci kaw Leket di nuyu Alaaji Keba ak waa Baara yëpp mbir mi nii la dañ ko def ci yar ak teggin lamb ji avancé lambi a dem ci beneen level lii bu amee ñu continuer di fi des suñu xel di dal ndax bu ñuy jël suñu xaalis di ko def ci lamb dañ koy def fu daal suñu xel du ñu liggéey ñu Leket moom xam naa ne moom li mu indi waxal fekk armée ak kii nu mu tuddati fànn yi ñu jëpp li mu moo ko ci fekkee dinañu jël xanaa man ma ñëw indi sañ-sañ te combat bi ma indiwul sañ-sañ combat bi du loo jàpp ne loolu la Leket war a indi du bëre xam naa li muy bëre muy bëre ah laa jar a laaj kii laa dëggee sax ko tane non lan lay bëre wax ñu lu muy bëre non Leket du bëre Leket défenseur la day taxaw xaar ah xëy na nag combat bi mu ñëw ndax man moom maa ngi koy ñaan lim indi avant muy bëre combat bi ñu doon wax naan ku daan mooy roi des arènes combat boobu noonu li mu indi combat boobu maa ngi koy ñaan mu indi ko loolu noonu si combat bi ñu teel a yeewi amateur yi waaw man loolu rek laa koy ñaan loolu tam taxaw dëggal boppam ñu bëre yeewi amateur yi te di leen xamal ni nag lii sport la bu jeexee rek jeex na jarul ay noonoo jarul wax ju ñaaw ndax tey moom si ay nitam am na ñoo xam ne noonu lañ ma def làmb la man ak moom ñooy bëre man bu ma amee soxla baara damay dem yaa ngi dégg moom boo amee soxla baañu day ñëw mais lii sport la jarul wax ju ñaaw man ak moom mën nañoo waxante lu nekk ndax maa moom yooyu bëre waaye bu jeexee jeex na mais dafa am loo xam ne man naa ñàkk ndax li nga xam ne borom bu ngeen jàkkaarloo doog ko wax kon bu taxaw si mbooloo di ko wax amul njariñ te man moom xam naa ni man gaynde la leket gaynde la di ñaan Ondy Tactic bu dëggal boppam yàlla may man ndam ci kawam combat bi man sax laa xale laa moom mag la lii yomb li understand lii jomb ñu war nañoo mën a sol sax lu raw kos waaye nag jom tey dafa indi si làmb Gàmbi loo xamante ni tey dañ daan toog di ko seetaan Sénégal mbëri di ko sol ñu leen di ñeeñ man dama daan toog naan kañ laay sol lii waaye gis nga nit borom karagu nii ñàkkul dara te xale bu ndaw soo amee jom gëm sa bopp amul lu la mënta dab ci àdduna te man loolu laa gëm te loolu laa dund moo wax ni tey ma wax rek lay waxaat tey dañuy ñaan yàlla yàlla mel ñu wér man ak suma ba bés ba incha allah si kattanu yàlla yàlla may ma ndam bu sedd guy si kawam tey comme ni nga koy waxee man kenn du laam-laamee suma bëre bi man dong man may bëre bi juróomi catégorie bëre te kii li ma wax rek laa koy wax benn loxo la te benn loxo du tàcc te su boos ba di nga xam li ma lay wax. benn loxo lu waral benn loxo benn loxo du kii combat mais boo ko mos a gis mu daan ban façon kele koy mos a daan waxal. combat bi mu ci dafa bot. kàllam la benn loxo du tàcc suñu benn mbotti benn kale boobu si laa lay rey bu soobee yàlla yéen te boobu bu taxawee ma daan ko na ma may ma wax na ma la ma wax man yàlla rek moo mën a rey te bu soobee yàlla li ma la wax du ma si dellu ginnaaw incha allah si kattanu yàlla su may fan si loxo di jóg suma loxo mooy jóg si kaw lu leer laa la nekk di wax parce que xam nga la moo tax bés bu nekk am naa ko fii nii façon doomu aadama bu nekk bëri naa ak moom xam nga lan laa bëri naar bu xees amul chinese amul indien amul ñëpp laa bëri si àdduna am amay dégg moo tax ma ne kii jaaxaluma li ma ko laaj laa laaj ndaanaan nga bëre nga bés bu ne waaye sa jàkkaarloo tey ñu koy doog a gis si leket doog a ñëw sol li nga xam moom mooy toog bi tey say fans si yow loolu looy wax def lu waral lu ne mel waaw tey dañuy sant yàlla bitig bi nga xamante ne moom moo nekk di sponsor jàmm parce que jàmm ndaw la te ñu yëpp ay ndaw lañu understand lii dañ si gis suñu bopp ñu gis nañ suñu bopp si beneen level am kontaan bu baax a baax a baax mais sax waa ji moom warul sol ko kan la abu juba la. lu tax lu tax nga naan kan parce que moo ko jàppul warul sol ko daa may ah. waaw.